ñu ngi am mbégte dalal euh, Cheikh Tidiane Gadio euh, ci matinalu tey bi moom mooy njiital euh, conseil de surveillance agence de développement local responsable politique ci Yeumbeul Sud ñu ngi lay nuyu sëñ bi Gadio am mbégte dalal ci réew mi FM tey. jërëjëf Fatou maa ngi lay nuyu. alors euh, comme ñun dañu bëgg a tëddee njaaxanaay gannaaw bi fi euh, Oumar Sow jaaree euh, moom mooy conseil spécial ci président de la république nekk tamit responsable ca yëmbal mu wax ni yow ak seen leader Amadou Hott monsieur le ministre ak yeneen responsable da ngeen nekk xar yëmbal ñaar def camp Otis ak camp Makiste xajale ko kenn déggootu fa ba loolu sax xëy na ñàkkul moo tax ngeen lajj ci élection yi lan ngay tontu si loolu. li jiitu moo nekk baalu ak waa Yëmbal Sud parce que euh, ñun dañoo war a indil waa Yëmbal Sud taw féex indil leen bànneex jàppale leen soutenir leen suturaal leen te ñu ngi xaawi seen sutural ci rajo yi ak télé yi doomu Yëmbal Sud rek la ñuy dégg ñu ngi xeex di xuloo te wax dëgg yàlla loolu nag du ñun. waaw ay fas ngeen de. waaw yàlla loolu du ñun Kunkande Yëmbal Sud bi mooy def loolu donc du ñun. donc moo tax damay jéggalu waa Yeumbeul su leen di baalu àq bu baax ci sama tur personnel si turu euh, monsieur le ministre Amathou si turu bépp nit buy yëngatu ci biir politique APR wala benn bokk yaakaar dëmb Yeumbeul Sud ñu ngi leen di jéggalu di leen di baalu àq baal leen ñu àq suñu waa ji rek moo matul baal ñu àq. léegi looy tontu si si li mu wax ne moom ngeen nekkee Yeumbeul. waa loolu gis-gisam la xalaatam la am na ci sañ-sañ euh, ñun rek ñoo amoon chance Sénégal gi yëpp. ñun di unanimement ñu ànd tànn ni ministre Amadou mooy sunu candidat kenn si ñun yëkkatuwul loxo ku amoon ambition sax da nga ko teer sëf moom Kunkande. lu tax nga di ko tuddee Kunkande. moo xam na na laaj ko ko tuddee Kunkande xam na ku ko ko tuddee na dem. na ñëw ba fii nag di tooñ nag. droit d'auteur la dina kooku dinaa ko fay droit d'auteur droit d'auteur parce que man tey à partir de maintenant d'ailleurs je me fais la leçon la morale de ne plus parler de lui publiquement. ni en ni publiquement ni en privé parce que jaru ko jaru ko donc ñun nekkuñ ci loolu président la ñu liggéeyal APR la ñu liggéeyal képp koo xam ne kii dafa am yéene am bëgg-bëgg am pas-pas bugg ko liggéeyal su obligation ku ne si ñun nag ak tuuti bi nga xam wala bi nga mën jàppale ko ci loolu lañ ne loolu chance boobu lañ amoon ñëpp tànnoon ministre amatu na doon suñu candidat moom mu nekkoon en marche il a été obligé def demi tour pour ñëw fekk si ko lu ne def na ko fi jo jooy na fi jour élection ni kenn du seetaanati si àdduna bi ma lay wax lu bon ci kanamu àdduna bi yëpp waa yëmbal yëpp ay seede lañ su dee lu may wax du dëgg yàlla bu sama koor gi egg donc kooku pour man nekkatul référence boo xam ne jar na ku ne si ñun topp si di ci kii dégg naa tey ñuy wax lu waxoon naa ci moom lu baax damay musa wax ci moom lu baax parce que dafa yëkkati alalam dem ñaani saraxu ji ñëw di koy jox yëmbal sud ne leen ay miskin ngeen damay yelwaan indil leen toujours et il nekkuñ ci loolu nekkuñ ci division nekkuñ ci xaste nekkuñ ci loolu ñun li ñu nekk moo di seet lan lañ mun jàppale waa Yeumbeul Sud ñële opposition bi suñu nekkee beneen côté bi di liggéey di indi ay résultats ñun ñu nekk si beneen côté bi di indi pour que commune bi change xar kanam c'est ce qu'on fait. kon daal amul kaa Otis ak cas Makis. man de appaire laa bokk. Hmm. président Macky Sall moo tax ba ma démissionné ci fonction yi ma amoon yépp en 2008 dem dugg APR. maa fi ko maa maa ko fi sànc su ma neexee yëkkati sama loxo te que je suis l'un des premiers ñoo xam ne yëkkati nañ seen loxo ne makisal Sall lañ àndal Macky moo tax ñu privé ma ñetti atu salaire Macky moo tax ma souffrir pendant plusieurs années sans rien dans les poches et j'en suis fier j'en suis fier Macky rek moo tax ba ma dégg décret à la télévision c'est un honneur sur les 17 millions de sénégalais kooku duma ko tekkale ak kenn Macky Sall moom moo tànn Amadou Hott ne ko dama la wóolu jox la ministère de l'économie nga dëkk yëmbal sud mu Macky Sall ku mu wóolu ma wóolu ko yàlla def nag Amadou Hott doon sama grand frère doon sama xarit je l'assume waaw moom nee na affaire sax léegi affaire mbokk ngeen ko bëgg a man de sama grand frère la sama xarit a sama la sama xarit la je ne suis pas de son cabinet. Mm. fu ma laajee xalaat bu baax ma jox suma ma xalaat ma nekk ci ginnaaw. j'ai pas ce problème la par contre responsable politique laa yëmbal sut ku ma ko gën a xam amul je joue ma partition politiquement parlant te wóor na ma ne kay su ma yëkkatee sama loxo dina am ay tur yu bëri yi fi ne. dégg naa tam dañ la destitué woon ci coordination yëmbal sud bi. waa euh, dafa jara leeral du ma wax sax calomnie la mais man maa jël sama responsabilité. si kanamu Benno waxuma sax APR de si kanamu tous les responsables de l'APR et de Benno ma ne leen. de 2019 à maintenant amul lenn lu ma mës a yëkkat concerté wu ci ak ministre Amadou Hott bien que maama nekkoon coordonnateur ndax jox ko cër ndax jox ko responsabilité parce que kilifa bu toll noonu nekk ak man biir yëmbal sud awma droit di dirante ak moom mbagg doxal nañ ba fii dimbal yàlla dimbal nañ ñun ñëpp ñu ànd ñu jiital ko mu doon suñu candidat yàlla def na lu gën léegi nag dafa jot ku ne si ñu euh, calculer jël responsabilité mu xool lan moo ci wàllam ci mbir mi man sama wàll ci mbir mi doxal naa ko ba fii tey jii dama leen di ñaan yéen ñëpp su dee ànd ngeen ci li may wax ma jëkkati coordination bi teg ko ci loxol Amadou Hott ñun ñëpp ñu jóg tàccu ko ñu ni ànd nañ ci. il était là ce jour-là il est sorti que avant loolu ma koy def donc man kenn demeetu ma maa jël responsabilité ne tey dëgg bi moo di que nañu jox cër bi Amadou Hott ñun ñëpp ñu jàppale ko. et ce que j'ai fait ça ne m'empêche pas nag d'être un responsable politique qui anime qui a des amis et qui connaît très bien cette collectivité mais teewul déggoowu leen Yeumbeul ak Kër Massar moom am ngeen problème parce que mission de remobilisation bi docteur Cheikh euh, Kanté convoqué woon xeex sax am na fa donc euh, nangul ne quand même division am na foofu xam nga man ma division fépp la am nu mu amee si ñun noonu la amee si opposition bi noonu la amee si ñeneen noonu la amee si ñeneen ku nekk nag da nga ci boole ngor rek am yooyu wax si kaw am yooyu def si suuf bon ñun pour l'instant ñu bëri si ñun dañoo nekk en marge du du du de de de de de l'unité mais yëpp mais li li li Kër Masar am am na ñu bëri ñu ko amul de ñoom dañ ne waxuñu kii bu mu fi nekk waxuñ bu ñu investir waxuñ bu ñu investir mais dañ ne nañ ñu si boole nañu jox cër. parce que élection yi la yi passé lii ak lii la ñun dañu bëgg indi suñu contribution indi suñu xam-xam indi suñu xalaat pour que président gagne mais loolu kay du problème. kon élection yi dafa am ñu ngeen beddi woon. moi je sais pas c'est ce que les gens disent xam nga ku nekk ak nu muy gisee. analyser ngeen évaluer ngeen élection yooyu. à Yeumbeul xam nañ ni lii ak lii ak lii exactement le nombre de voix que nous avons perdu ce qui nous a fait perdre nos voix qui qui a voté wax waxu vote sanction le bilan évaluation bi def nañ ko mais ñun ñoo ko moom parce que ñun ñoo war a. mais doo ñu wax tuuti ñu xam lan mooy problème bi foofu tamit. mais ah lu tax du amal njëriñ. parce que du yaay corriger ñun ñii ñoo war a corriger. Mm. comme ñun ñoo war a pour ñuy déglu. waaw ñun ñoo war a corriger ñun ñoo war a corriger ñun ñoo war a xoolaat suñuy doxalin xoolaat suñuy mbir wàññi indiscipline yi toog si rajo yi di xas say consor yooyu problème bi du woon Amadou Hott. ça n'a rien à man dama gëm ne que ça y yoo xam ne c'est des c'est des erreurs humaines yoo xam ne ku ne si ñun def na ko erreur naturellement erreur am na yoo xam ne nii c'est volontaire am na loo am na leneen ak leneen. tam du yeewee moo xaw a diis seen kaw rek baara gay tam liggéey bu baax waaye yëmbal bañ a xool Amadou Hott ak ñi mu àndal est-ce que du loolu. dama koy féliciter au passage mm. mais c'est pas ça du loolu moo ñu ñàkkaloo mais dama koy féliciter au passage kooku tamit si sama élèves la bokk xam man dama man professeur laa ay yëmbal sud de ñu bëri si ñoom maa leen jàngal. Mm. baara ci la bokk moom Kunkande ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. non tey tey man dama waroon toogi ñu ma indil alarba. Mm. parce que ça date pas de 2009. d'accord léegi ñu ngi jëm si ay euh, législative jàpp nañu ne Amadou ot mi ñàkkoon si local yi moom xel warul xalaat sax ñu di ko fi tegaat euh, te ci tànk yooyu ngeen nekk ñu ne. waaw Amadou Hott de damay wax rek te yàlla tax musuma dégg mu ne ma bëgg naa coordination wu yëmbal si wala coordination wu Benno musuma dégg mu ne ma bëgg naa coordination département de Kër Massar. musuma dégg ne bëgg naa doon député wala porte liste département wala national wala feneen wala feneen ma ko dégg par contre li ma dégg toujours muy wax moo nekk lépp liy tax ba président Macky Sall di gagné moi je suis prêt lu lu lu lu jaral nit rek luy war a jaral nit rek pour que nit pour que pour que président gagné dans le département de Kër Massar je suis prêt à le faire. ah ñu ne moom après Macky Sall lay toppatoo fi mu ne nii. waaw loolu de man mosuma ko dégg. Hmm. da moom Kunkande mu ngi xar laaj leen ko. léegi yéen euh, euh, élection présidentielle bi ñu dëkkmal da ngeen jàpp ne président Macky Sall am na droit dem def beneen mandat. man APR laa bokk benn Bokk Yaakaar laay wuyoo je suis dans une logique où lépp li parti bi nas président ànd si ne lii mooy li gën dama ci dox guddi dox ci bërëb xar ci sama tànk tugay ba mu am donc li des. sama yoon nekku ci moi je suis militant j'ai toujours été discipliné te àdduna du gudd tànk ba ma changer euh, logique boobu. d'accord élection législative yi lan nga jàpp ne moom ngeen war a def pour que coalition euh, Yewwi ak ñeneen ñi cohabitation bi ñu leen di dig mu bañ am ndax bu dee xaajaliko bi ngeen nekkee moo wéy ak coow yi seen biir moom xalaatu leen gagné. xam nga ne suñu demoon su nekkoon euh, élection locale yi moo nekkoon élection législative on a pour cent des communes 80 pour cent des départements. gagné nañ largement la l' assemblée nationale jëlal assemblée bi rek pour que pour que nga mun a c'est 112 députés sur la sur les départementales 80 pour cent de 112 ñaata la lan lañ perte Dakar. Guédiawaye Kër Massar. donc ça veut dire que dañ doon am majorité loo ci boole ci national bi tu as 45 50 pour cent tu as la majorité absolue te fa lañ jëm. nga yaakaar ne noonu lay yombee. waaw lañ jëm pourquoi parce que ñoom seen bopp dina am ñu génn dem defari seen i bien qu'ils étaient dans le Yewwi certainement ñun dina am ñoo xam ne ñii dañoo defoon défi seeni liste ils vont nous renforcer. donc yeewi moom waa yëmbal sud <laughs> xam nañ ne seen loxo diis na géej waaye xam nañ ko dakaar tamit noonu. waaw bon euh, en tout cas en tout cas nit moom da ngay basé wu ci résultat. Hmm. soo basé woo ci résultat mun nga euh, euh, analyser ñun suñu taux de participation rek déjà mun na changer la donne. des gens n'ont pas leur carte a plus de 18 000 cartes yoo xam ne ñu ngi tëdd sous préfecture parce que y a eu ce qu'il y a pour que nit ñi bañ ci jot seen carte am ñoo xam ne jot nañ seen carte gaa yaa ngi seen i carte ñun xam nañ ce qui s'est passé am nañ ci walla nag mais ñoom kese comme nangu woo ñu wax lan mooy problème bi ah, kay ah, léegi ñu wax ci ADL bi nga jiitee lan mooy njëriñam est-ce que askan bu Sénégal banlieue bi mm, ñoo ngi ciy gis seen bopp waa ñun maire yi la ñu liggéeyandool ñun du ñu liggéeyandoo ak citoyen lambda. mais eh, maire pour mu dem si askan bi. waaw c'est-à-dire ñun rôle bi ñu jox. rôle formation la rôle encadrement parce que ces nouveaux maires yi ñëw tey xamuñ nan la ñuy gérer mairie pour preuve ñu ngi tâtonner rek ñun loolu mooy suñu wargal jàppale leen former leen en relation avec le ministère accompagner leen pour que ñu am ay partenaires accompagner leen pour que yenn jafe-jafe yu ñuy am ci ci ci ci mise en place ci installation mu deñ mais aussi accompagner leen ñoom ñu mun accompagner population yi ci yenn projet de formation yi ñun loolu mooy suñu warugal ñun jàppale leen ñu am ay partenaires yu crédible yoo xam ne mun na tax ba yenn projet yi ñuy am ñu mun ko def mooy suñu rôle. mbaa du ngeen seppi tamit maire yi ngeen di jàppale di tànn suivre xaalis boo xam ne bi état bi daf leen di jox xaalis boobu ndax nuñ koy doxalee bu baax wala baaxul su dee baaxul ñu saytu ko corriger ko pour que ñoom it ñu defaraat seen i doxalin ñun loolu mooy suñu rôle ñun xamuñu mairie opposition xamuñu mairie pouvoir ñun lu ñu xam mooy maire commune du Sénégal. raxul politique. institution amul politique institution amul politique ñun suñuy suñuy jàppale ñun ñun maire bi la ñuy jàppale. que le soit de X ou Y le maire ne fait que porter quelque euh, un mandat de population sa s'arrête là c'est pas lui. ñu jeexal su nekkoon loolu la kenn si ñoom du am si fonds de dotation fonds de concours mais mairie yëpp fonds de dotation fonds de concours la lu tax newuñ naka parce que opposition lañ duñ jot fonds de dotation fonds de concours. tolloowul tamit de. mënul tolloo parce que. ñu est en fonction de la démographie mairie yëmbal Sud mënul yem ak mairie Nianing parce que ñoo leen ëpp population ñoo leen ëpp jafe-jafe. comme mairie Dakar mënul tolloo ak mairie ak le conseil départemental de Kër Massar et d'ailleurs c'est intéressant parce que même sur la fiscalité am na yu bëri yu changé mais maire xam ne en tout ñu bees ñi moom ils auront du mal hmm. mais am nañu ay. est-ce que du ngeen leen hmm. bopp la xam-xam la mais aussi am relation gestion collectivité locale du leneen lu dul relation. ti a un bon carnet d'adresse euh, tu es tu es tu es ingénieur tu as mille chances d'avoir des résultats. dans le cas contraire tu encore une fois population Yeumbeul Sud di leen bu baax parce que honnêtement ci may dégg Koukandé di def yëpp naqaru xol laa ci am. da ngeen am problème particulier problème diggante yéen ñaar ba tax xëy na yëf yi demee ni mu demee Amadou Hott moom wax na li leen boole mais yéen ñaar da ngeen am beneen problème. honnêtement euh, man li ma xam mooy dans la nuit du cinq donc mercredi jëm alxamis woon ma. manque de respect samay waajur moo di saaga leen mu woowe ma numéro privé ma ne ko su dee góor nga da ngay woowee ak sa numéro xam naa mu woo ma fekk boobu boobu laay doog a yegg si xiif comme séeréer bu baax. couleur bu xiif waaw di di di reer euh, mu woote jotuma xam naa ne su ma woowoon tamit c'était pour pour pour saaga wala wala yu demee noonu su ma jotoon tamit loolu la doon def jotuma mu yónnee message mu ne ma wallaay dinaa la rey te sois sois en certain que dinaa la rey. message écrit ma ne ko nag foo bëgg la ak kañ nga bëgg parce que daf ma wóor ne nit indiwul nit sur terre ba koy yóbbu nit nag noo war a génnee ci àdduna bi yàlla moo koy décider su ko décider ci loxo diw ngay jaar parce que moo lay fetal nga dee wala accident lay doon wala feebar ngay doon noonu ngay génnee àdduna donc tiituma xofuma ragaluma par contre dëkk bi nag dafa am yoon futile euh, nga nga doon ku gën a jege le président de la république wala nga doon le plus saint des saints am na yoo xam ne nii amoo ci sañ-sañ nee na dafa am pistolet fu mu tourné da koy dégg ne wane ni que dafa am pistolet ci biir campagne électorale bi la doon génne pistolet ñuy accusé ne que le ministre dafay génne pistolet alors que moom la ñu ne ministre bi génne fekk moom moo fi génne pistolet man jàpp naa ne que ministre de l'intérieur joxewu ko autorisation de port d'arme pour que fu mu tourné muy menacer nit ñi parce que autorisation de port d'arme c'est en cas de menace su dee da nga nekk légitime défense la. je pense ah jànguma droit mais yaakaar naa loolu la donc euh, mbir mi nag yóbbu naa ko ca ña ko war a traité ca ña ko war a traité te jàpp naa ne dëkk bi nag dëkku yoon la ñu ñëpp ñoo si yem. am na porté plainte. en tout cas yóbbu naa ko fa ma ko war a yóbbu. fan nga ko yóbbu ah, ko war a jugé. ña ko war a jugé c'est c'est les autorités judiciaires yóbbu naa ko fa man li des nag bàyyi naa ko seen loxo mais lu wër wër moo nekk fii ak fukki at yii di ñëw lu ma munti dal Kunkandé Sow moo ma ko laal. c'est lui parce que moom kese moo am sañ-sañ moo am fit ñëw bind ma ne dama lay rey te nag yemul ci man de ñeneen ñi mu yaakaar ne que dañoo jege ministre Amadou Hott yëpp ku nekk si ñoom nee na la dana la rey waaye hmm? c'est ce qu'il a et c'est ce qu'il a léegi nag bàyyi nañ ko loxo si yàlla ñun du yàlla du yonent bi jërëjëf Cheikh Tidiane Gadio yow yaa njiital euh, conseil de surveillance euh, agence euh, de développement local responsable politique aussi ci Yeumbeul Sud amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. Fatou kontaan yow lool si yow merci.